asalaamaaleykum wa rahmatulahi waa àddina asalaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum monde entier àddina wërngal këpp tey nag ñu ngi fii ci naa Seydina Limaamu bi tubaarikàlla macha allah muy 44 ans 144 euh, ans bu appelu Seydina Limaamu bi mu ne woon aaji boo daay laay yaa man sa rët si wal jinni inni rasulullah ilaykum tey nag ñu ngi fii ci kër magum kër ci kër meer laay ku baax jàmbaari Seydina Limaamu jàmbaari Seydina Issa Rouhou Laye jàmbaari Serigne Ablaye mi dem waaye jàmbaari Modou Lamine Laye mi fi toog tubaarkàlla muy maire Laye kenn du leen ko présenté ñu ngi nii ci këram macha allah fi la ñu ñëw fas yéene ja maamaarloog yéen wax ak yéen ci appel tubaarkàlla maire Laye salaamaaleykum wa rahmatulahi jàmbaari Seydina Limamou Dia nuyu nañu. aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa ngi leen di ziar seet nu ngeen def. leen ñaanal seen rajo bi yàlla na jëm ci kanam. télé beeg télé beeg yëpp yàlla na jëm ci kanam set TV yàlla na jëm ci kanam te lépp luñ ci ñaan yal nañ ko yàlla boole ci barke Baye Laye yàlla yàggal seen taxawaay ci barke Rouhou Laye Issa. mère Laye ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la jox la sa wàccuwaay bi nga xamante ne moom nga am ci biir kër Seydina Limamou di fi soxna waaye di fi doom di fi taalibe li tax nga jël initiative bu def lu baax def social jàppaare jàmbaar yi képp koo xam daf ni bëgg naa Seydina Limamou rek yow lu mu bëgg moom nga bëgg. ban initiative ak ban yëg-yëg moo waral yow nga bàyyi lépp ni man jàmbaari Seydina Limamou laa dama koy. ah dama cee taalibe laa dama dama cee bokk waaye taalibe laa def sama bopp xamee ma murit xaadir ak tiijaan ak laa yéen ñëpp laa yemale sama tànt bi mm. tarixa yëpp laa ko tàntal tarixa yëpp laa ko tàntal ngoy te nga bokk ci nag da nga ci bokk te xam nga ci dara kon bàyyi laay rek la ñuy dawal ñu ngi ci yoon bi rek di daw bàyyi laay la ñuy ñu ngi ci yoon bi di daw loolu la wax jëf lu bari moom wax tuuti loolu la meer laay nekk tubaarkàlla ngeen topp ñu ñu dugg biir kër magum kër macha allah xool li mu berde ak li mu def ngeen xam ne jàmbaari Seydina Limaamu kenn du ko tudd di romb ñu ngi ànd ak télévision bu mag bi laa 7TV télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale laa télé ki lu ko sàmm elu ko sàmm tey ñu ñëw fii kër magum kër fekk si maire laay di la laaj sa appel ak noo ko yëgee ren ak ni mu mel tubaarkàlla macha allah ñu ne mooy 144 yéen appel Seydina Limaamu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah man la sumbul si laa sopp na bi bu Serigne Issa ah ñu ñëw fekk suñu doomu rek suñu président daayira soxna Amita Sarr ànd ak yaayam ñaañi Sarr ñoo fekk fi seen mbokk maire laay ñu ba Grand Yoff ñëpp benn lañ ñëpp ñëpp benn lañ kenn ku nekk rek ah da ngay soutenir sa morom bu xewle ak ah, ñu ànd ak suñu président daayira daayira soppeeku Serigne Maodo si ànd ak Makhtar Sylla mi nga xam ne ñoo ànd di takk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam muy daayira Maodo ànd suñu yaay Adja ñaañi Sarr ñoo fekk seen mbokk muy maire laay ah di ko béggee bu baax tey ñu ngi soog a dugg si fii tey waaye wax dëgg yàlla am nañu mbégte lool macha allah ñaan yàlla bis bi yàlla ñu ko yàgg a def ci barke Seydina Mouhamed sallallahu di gërëm 7TV ndax heure bu nekk ñu ngi seetaan seen émission yàlla yàlla barkeel leen barke ñun ñu ay takkat Seydina Mouhamed dëkk Grand Yoff mais ya abi balay يا دي خير خلق لا لا إله إلا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا دي خير خلق لا لا إله إلا الله سيدنا إسا رولا يبا مودق الإمام لا لا إله إلا الله سيدنا إسا رولا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 laa ilaaha illallaah. tubaarkàlla macha allah yéen a ngi ànd ak télévision 7TV la télé qui nous ressemble et nous ressemble bi ñu ndur ba noppi duñ dajale. tubaarkàlla gis nga xale yaa ngi nii Kër Mère Laye macha allah tabaarakallah ne ci liggéey bi tubaarkàlla macha allah appel bi rek leen ñor ak wootub Seydina Limaamu bi tubaarkàlla macha allah aleyhi salaatu wa salaam waa kay nen tuuti. yéenay waa waañ macha allah yéen a ngi servir. waaw ñu ngi servir noonu. yéen a ngi defar. waaw ngi defar waaw. na leen yàlla def ma. amiin waay laay laay bàjjen. laay maxtaar laay madina. ñu ñëw fekk la fii macha allah ci kër magum kër bu meer laay macha allah jàmbaari Seydina Limaamu ji li ma wax rek moom laay bam barkaala macha allah ñu fekk la fi ngay bàjjen di wéy te wéy am solo naka nga yëgee yëg-yëgu. mère laay ni muy takkoo doon bàyyi faalu sëy naa topp ci ginnaaw magum kër tubaarkàlla yaay boo ñu doon wax tey bàjja loñu jërëjëf kontaan rek sama xol sedd seddati ndax bàjjanay baay te koddu mi dajal na ñëpp ci mbaax yar teggin fonki baayam fonk ay ndeyam fonk magam yi toog ñi mu bokkal ndey ngi ñi mu bokkal baay ngi fi waaye maay seen bàjjen ay goroom it ñu ngi axi njëkkeem sax waaw ay goroom a ngi fi ay njëkkeem a ngi di ko gërëm ma toog di leen dégg bu ñu waxee ba mu neex leen ñu làkk ba mu neex leen ma kontaan ndax lépp dañu ko jëmale si sama doom muy koddu ndooy Codou Ndoye dañ ko dénk magum kër magum kër sëriñ Ablaye ko jur sëriñ Ablaye Seydina Isaay baayam Seydina Isaa li maamuy Kumba Ndoye jur ak Alsaan maam ni maamuy Kumba Ndoye Kumba Ndoye maamam la ñu tontoo Kumba Ndoye sunu maam ñu bokk benn maam sunu ñaari maam yi bokk ndey ak baay ko dumi magum kër mooy papaam mooy càmmiñam ndax ñaari maam yi ñu séq ñu bokk ndey ak baay bokkantuuñu de nga am yar am teggin mba dut jaw ndooy mënuñu laa fay yal na la yàlla fay say ndey gërëm nañu la say mag gërëm nañu la say njëkk gërëm nañu la sa jëkkërit gërëm na la gërëm bu ñëpp seede moom mii sa borom kër moo la jëkk a gërëm ndeyam gërëm la ay tantaam gërëm la njëkk gërëm nañu la sa mag a ngi nii toog di seen xalifa si sa kër yaay waaye maay xalifa tey si sa baay caam-caam jigéen yàlla ama fi bàyyi na nguur a fi de nguura bàyyiwu ma fi de man rek ne waaye allah ma fi bàyyi nga lool yaa baax nag manu la yaa baax sama doom ji gënu ko ko dudu jaw ndooy manu la ñaawal ay te ay mariam ay tajanta maam Mareem Ndooy Mareem Ndooy ay tajeen Kumba ay tajeen Suleymaan Ndooy ay tajeen góor gu mag Ndooy ay tajeen ay tay maam ma jeen Demba borom kaay yaay mbokkum kaweer ko dul dul jaw Ndooy maam Mariam Ndoye sa maam yaay doonay julaami coxo joob julaami coxo joob ak yabay mbengi coxo joob ak maa samba mbengi coxo joob yabay sa maam dafa wara kaay wàcca xeeri ndooyeen kër samba ndooy ba pay mu taawlo fa maam amar ndooy sa maam yabay mbenga yaayam amar yabay maaka baax dellu kaay kër maamam jël fa ay ta jeeni ma jeen ci kaay mu am fa maam kumba ndooy sa maam ay ta am fa mareem ndooy ay ta jeen mareem ay ummi gey ummi gey samaam moo di yaay Musaa Ndooy ummi gey samaam kooko yaay Ablaay Ndooy di yaay Maria Ndooy Maria yaay Ablaay Jaañ Maalik ko duudut jaw Ndooy ku lay way wandeelu Mariam Ndoye yaay Astu Gey Astu yaay Alaaji Ibrahima Joob Dakaaru maam Mariam Ndoye yaay tëjeen mu maam may sey saasu mi ndeela faal ay taak ma jeen demba mi ci kaay Mariam Njaay ndey demba jeene beeñ kumpaañ ca beeñ amoon ak ca beeñ gaanne waaxuk beeñ ñoogoron teene beeñ ko amoon ak ki beeñ nga amoon ak ki beeñ ko ñaakoon ak si beeñ nga amoon ak ki beeñ maa ngi bàyyi ba sa kanam ndeysaan maa ngi bàyyi ba ci kanam ku ko gis xam ne mag na jëm na mag waaye xol bi ñëw na xol bi wax naa xol bi gërëm na doomam xol bi sant na doomam waaye xol bi fëggu na sant Seydina Limaamu mu ne woon aaji boo daaye laahi yaa man satal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum woote bàyyi laay bi duy caaxaan tubaarkàlla ñu ne tey la 144 ans ci woote Seydina Limaamu bi woote bii nag li Mamadou Makhtar wax sànq rek nañ ko ne jàkk te bu ko kenn piis ku ñëw bàyyi ñëw fekk ko fi kuy demit ba ko fi sa moroom jër relève bi yéen a ci télévision bu mag bi la 7TV la télé qui nous ressemble kontaan nañu lool sant nañ bu wér ndax yàgg nañ koo teewe yàgg na lool ñu teewe ko kon na yàlla na gën a yàgg ak jullit yëpp nag ñu ànd ko ñoom barke naa Limaamul Mahdiwullah waaw di gërëm nag borom kër gi nga wax di magum kër waaw jàmbaar la jaboot la mën naa uuf ñëpp am na yërmande am na yëg am na sutura uufal nu nag sunu rakk ji di koddulaay ñuy yaayam ci kër ndeyam di magam suñu ñaari papa bokk ndey ak baay ba ñuy tuut ba léegi ñu ànd te nii la mos a mel mosul soppeeku man nag mu def ma féeteem waaw mënuñu wax lenn ci moom lu dul moo baax ndax moo yaatal boo demee mu dem boo ñëwul mu ñëw alalam dina la fekk si dina teg ci jakarta dina tekki ci taxi dina tekki lu mu xam ñëw fekk la ba sa ne am dangay toog rek ñu ne am diwa walla jox li waaw te mënoon na ko cee bañ a fekk ndax iteem bari na waaw waaye na teewul yëg na ay bokkam yëg na ay magam ñun ñii bàyyi la ñu def léegi defatuñu mag waaw cër bu ñu war a am rek jox nañu ko kon nag ñu koy ñaanal yàlla wér ko ñaanal yàlla gudd fan yàlla na ko yàlla làq fa yàq yeggul waaw lu mu mën leen yàlla na mën fukk ak téeméeram bu soobee yàlla yónnante bi gërëm nañ ko sant nañ ko kontaan nañ ci. moo naa bu mu ñëwee fii. booba tabaarkàlla fii booba dañu wàññi kër waaye nag gis nga boo dee def defal te yàlla tax nga fexe ba sa ndey ak sa baay gërëm la ngërëm ak ndeyam ak ngërëm baayam moo tax mu am lii moo tax mu am lii ba ñu koy gërëm fee ca tant ba ma ne leen nag bu ñu nee kodd baax na nii ndax moo ko yaa ko wax ma daal di jël parole nii ma jëlee parole nii laa jëlee parole man kod deseeru ma dara xalifa la may wooye man yaay sunu xalifa moom la may wooyee Korda am na ngërëm man ndey Korda am na ngërëm baay jëkkëram nag tabarkalla macha allah ndax at mu ñu ñëwee rek mu wax ci moom lu baax ñu naaka sànq doole doole jën ndox Korda baaxul yow mii baax ndax mënoon nga ko maral baa nga xiifal ko baa nga rafleer ko baa nga di ko dóor te defoo loolu waaye nag fii ci suuf maam li maa nit du fi torox ndax ñaan ngi fi ñu woon naa la nag dooy toogal fii nga toog ñaanu waaji la fi toog te yow def nga loo xam ne daa am soxla yoo pëli kii keroog jooju bu mu lakkalee kër gi yëpp lakk néeg ya lakk lar ya lakk mu dinu ko ne buñ ma ñëw mu ne bëgguma leen ko woon sax wax ndax kura moo lakk sama kër ma ne ko ah ma ne ah ma ne ko toogal xaar yàlla yàlla ñëw na nag ndooy yal na la yàlla jàppee yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla làq fa yàqu yeggul barke alxuraan al karim barke kaabatullaay barke madinatu munawwar kodd foo bëgg yegg yal na la fa yàlla yeggali di jaayi nabil Moustapha. Codé Ndoye maire laay jàmbaari Seydina Limaamu ji lan ngay tëje tey ak looy ñaan ak lan ngay ñaan ci réew sant yàlla yaa ngi ci tëje gërëm samay mbokk gërëm képp ku fi teew nag waaye li ñuy ñaan ci réew mi rek mooy yàlla na xol yëpp dellu si am jàmm yàlla na dëkk bi sedd guy lépp lu fi yëngu-yëngu yal na ko yàlla fay seen télé bi yàlla na ko yàlla yëkkati ba ci kaw a kaw si barke Baay laay wax. may mën a nuur fay bu baax jigéen la. Ndour incha allahu rabbi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ànd ak ndimbal yàlla may mu ne yàlla na ànd ak ndimbal yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati na jant ci kaw si barke Baye laay war may maam Seydi te lépp lu mu yóotu rek mbokk kook yow ak ku ko yàlla boole jërëjëf laay maxtaan jërëjëf lu may mun a yóotu lu may mun a yootu yàlla na ci jot moom la jigéen ju sell ju tedd ji ñaan day xale nag tout tànk waaye tubaarkàlla fexe na ba ñu bàyyi ko xel fex na tamit ba sëyukaayam tubaarkàlla macha allah ñu jox ko cër cër boobu nag ñëpp ko war doomu aadama yëpp ko war a wut kon tubaarkàlla macha allah limaama Kumba Ndoye ñu ngi lay ñaanal Alassane ak seeni seeni ma jigéen yàlla nañ man sama xarit nga ma bokk gi ma bokk ak yow ci sëriñ Ablaay waxuma bokk gi ma bokk ak yow ci maam Ngaan waxuma bokk gi ma bokk ak yow nag ci fii ñu toog Cambérène ak bëggante gi ñu bëggante waaye dama laa nawloo ndax foo déggee mère laay rek ñu ne la social la magum kër ñu ne la social la mais mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon ngaa toog liggéeyal say naali maam rek te bañ a dimbali euh, miskin yi bañ a leel xale yi waaye xale yi dañoo bañ ba xale yi mère laay la ñuy tiitaroo lu ne sa loxoo nga ca lu ne yaa ngi koy def bu dee nag jàmbaari Seydina Limaamu rek nga maa ngi koy naan ci barke Seydina Issa Rouhou Lahi nga xamante ni moo ñuuloon moo xeesoon démb ñuul tey donn maamam ñaari yoon moom daf ko donn bete bete la ci maamam ñuuloon ñuul ñuul xees démb ñuul tey moom mu xeesoon démb ñuul tey tubaarkàlla maa ngi koy ñaan ku lay xaar yàlla na xaddi di ko ñaanal nag la télévision 7TV di leen wax nag li leen jëlee kër mère laay ngeen topp ñu macha allah appel bi dara du leen ci réer bu neexee yàlla. incha allah li ma leen waxoon rek ñu ngi ànd ak télévision bu ma TV tele bi ñuy nduru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous ressemble nous ressemble ñu ñëw nag fii macha allah fekk fi Lamine Samba suñu frère suñu lépp nga xam ne moom macha allah dafa jaxasoog laayee ni bokk ak ñoom nday bokk ak ñoom bàyyi yàgg fi dëkk nag maa dëkk 15 ans macha allah bu appel bi jotee ni ko ñëpp di defee noonu la koy defee ci këram bernde def ay teraanga def lépp tubaarkalla macha allah ma allah yàlla boole ñu métier mi ñu bokk tabarkàlla Lamine nuyu maa ngi lay ziare bu wér soxna Ngoy di kontaan ci yow di la bége bu wér di bége waa télé bi yépp ndax 7TV moom dafa am lu ma fa am lu bari tàmbale ci Maimouna Ndour di borom kër gi maa ngi koy nuyu di ko ziare dafa am baat bu mu ma wax dama dem bureau mu ne ma Lamine. ñëwal fii liggéey nga jël temps bu la neex kër gi sa kër la waaye tamit mu am ay technicien ak ay journalistes yoo xam ñoo bokkoon wal fajri ñu dale ñoom muudu juuf su ma limee damay juum ñoom Papis ñoo ñu nga xamante ni ay xale yoo xamante ne nii la daanaka du ma wax maa leen tàggat ci métier bi sax waaye bi ñuy dugg ci métier bi yàlla dafa def sama loxo lañ jaar ba tey ñoom ñu nekk 7TV kon télé yi ma lay bëgg a limal muy 7TV wal faj fajri TFM techniciens yi ak journalistes yi ñoo ciy demalante ñoo ci dikkalante maa ngi lay nuyu di la ziar yow nag suma sœur nga li ñu bokk dafa bëri dañ bokk ndey ba pare bokk Mamadou Mbaye Garmi moom sœuru Mamadou Mbaye Garmi la waaw waaye nga fekk fi nag sama rakk Lirou Diane moom man ak moom man ak moom mag ak rakk lañ te dëggu la te lu dëggu la lii mu def nii at mu nekk bu dee cinq minutes dina ñëw sama kër te ñëpp xam nañ ni moom ñëpp ko soxla waaye man ak moom ñu séq la liiru dañoo séq teraanga ba pare séq ndey ak baay nga fekk ma nag fi nga xamante ni boo ma fekkee damay kontaan sama kër goro su ma nee sama kër goro dama bëgg a dégg lu baax li ma la kër gi mère nday mbay moo ko moom mère nday mbay mère nday mbay jurul mariama mën la jur moom jurul mariama mën la jur kii wallahi tax na jooyu ma aram sekk barke yonent bi ndax ñaar fukki at ak ñeent maa ngi nekk ak doomam xoolal bu ñu wëlbatikoo sax mu mu mu mu wane ni jurul Mariama man la jur kon moom suma yaay la loolu xam na mais ma lay ma lay firndeel ni incha allahu rabbi dara duñ ko séddale sa ginnaaw lépp di nga ko fekkee bu neexee yàlla ak yonent bi lépp di nga ko fekkee incha allahu rabbi waaw Mariama moom du ma ko gërëm de déedéet li muy def yàlla gis na ko gis nga appel bi waa kër Seydina Limaamu Laay ëppale wuñ ko ci dara ndax ñaar fukki at ñu ngi dëkk Cambérène ñaar fukki at ak ñett ñu ngi dëkk Cambérène léegi rek magum kër jongo xam nga lu ma wax magum kër jongo euh, ab Serigne Ablaye Thiaw Laay mooy waajuram moom mun naa nekk xalif général wu laayeen ni léegi daf ma ne lamin mbooloo maa ngi noonu maa ngi dem lu fi baax yow la lu fi safaanoo yow la kon xam nga loolu tey jafe na pour nit di ko def Mariama bu ñuy bu kam bu appelu laayeen jotee Mariama dafay mel ni maanaam addunaam day tukki dina jënd xar dina jënd ginaar dina xottil xale yi dina def lépp ngir Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu salaam kon moom yàlla moo ko boole ak Seydina Limaamu Laay mu yeewoo ci penkam heureusement tamit ba yàlla dogalee tamit am naa fi titre foncier maa ngi koy sante yàlla bu wér comme Seydina Limaamu Laay am na lu ma ber am na lu ma ber am na am na lu ma ber lu ma beral nañ waxante dëgg mënoon naa ko am parcelle noon naa ko am géejawaay mënoon naa ko am feneen waaye Seydina Limaamu Laay ci ëttam la ma la ma xiir ma am fi titre foncier comme ni ko ñëpp amee kon maa ngi koy sant yàlla bu wér wér di ñaan appel bi yàlla bu mu doon suñu mujjeelu appel lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu man samay doom yëpp Cambérène lañ juddoo ñëpp samay doom yëpp Cambérène lañ judd yow it li nga def weexal sa nawle du la tax a ñuul ñuulal sa nawle du la tax a weex yow soo defee lii nekk ci télé ñëw lu toll ni appel surtout ay surtout limaamu laay nefi ay borom daja daraja nefi nga nga jël ma man mu xeebu mii ñëw tàllal ma micro kontaan naa ci yow ndax man ak yow danoo yàgg te àndewunu lu dul man say doom ak samay doom dama leen mën a tàqale yow da nga leen mën a tàqale mënoo leen tàqale man mënu leen tàqale déedéet Mbàkke da nga mënoo leen tàqale mënoo leen tàqale mënoo leen tàqale kon rafet na ba noppi li ci des nag damay bàyyi sama doomu ndey moom it murit la comme man ni ma nekkee murit waaye diine ji yëpp benn la maa ngi seetaan léegi ci télé bi cent cinq maa ngi xool boobu temps moo nekkoon xalif euh, porte parole xalif généralu ni muy Serigne Ablaye Thiaw Laay balaa muy jël kàddu xam lu mu wax dafa ne wayal leen ma hymne national murit yi gars yi dugg ci Serigne Touba mu ne wayal leen ma hymne national Tidiane yi gaa yi dugg ci maam Alaaji Maalik mu ne wayal leen ma hymne national Canaba noonu la toppee kilifa diine yëpp yëpp Cambérène rek ngay ñëw ak yoof nga gis Serigne Mbacke laay ñu tuddee ko Serigne Mbacke soxna loo nga gis maam Alaaji Maalik maam maam maam Seydina Limaamu noon maamam kon Cambérène dañoo boole lépp fii nag ëttu diine la te ma lay fàttali hmm. kenn du fi musique kenn du fi tux cigarette kenn du fi naan sàngara kenn du ko fi jaay nit ñemewu ko parce que benn titre foncier la Seydina Limaamu Laay ko moom maa ngi fàttali ko foofu laay daanee lay jox liiru Samba yaa ngi appel de yaa ngi appel waaw dafa am benn waay dafa am benn waay dafa ñëw di musique fii déglu ma de di musique jënd fi kër di musique mm. comité bi ñëw ne ko fayal musique bi mu ne waaye lu mooy fayee musique bi man ma jënd sama kër ngeen mooy fayee musique bi gars yi dem réunion ne ko yow kër gi ñaata nga ko jëndee woon mu ne ne soixante-dix millions gars yi ne ko jox nañ la cent millions am génnal ëttu Seydina Limaamu Laay que musique la fi dagoon di taal rek musique musique musique nit ñemewu fee sol lu lu gàtt nit ñemewu fee bañ a ormal Seydina Limaamu Laay ñun nag bu ñu yàlla mayee sens ñuy yeewoo ci peggam ñun lan la ñuy def liiru jaan ah duñ sant yàlla suñu njaboot tuxuñu suñu njaboot naanuñu suñu njaboot sàccuñu suñu njaboot loolu nag dañ koy gërëmee Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam liiru jaan Lamine Samba moo rafeti wax nan ñaanal Mariama mu gudd fan euh, vraiment lu mu mën ren yàlla mën déwén lu ko raw li de yokk rek amul tànku ginnaaw tànku avancé rek ci kanam rek avancé rek na ko ñaan waaye ku baax nga Lamine ndax vraiment ku am sa soxna di ko seedal lii vraiment daal ñun ñëpp la suñu xol sedd Mariama yàlla na dem ba fekk njëriñu xale yi yéen ñaan ñëpp yàlla nga dem ak seen ma ma sa goro bi tubaarkaal li nga wax ci moom waaw sa yaay la damaa jur suñu sunu yaay la ndax ah, waaw ndaw nga wax ci moom dafa rafet euh, ñu nekk fii ci Cambérène ñu nekk ci appel bi di ko ñaan yàlla na ko fekk ay déwén déwén ñu jóge fee kër Ibou Seyni tamit nag ku baax sunu xarit la sunu sëriñ la Ibou Seyni laay ku baax la ku baax la fa laa jóge nii léegi léegi ak Ablaye Thiaw sama xarit la mooy ñoo leen ziar ñoom ñëpp ci bisu appel bi di ñaan luñ fi ñaan yàlla ko yàlla nangu di ñaan sunu réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm na yàlla fi yàlla def jàmm ndax réew mi fan yi yëngu na yëngu na yàlla yàlla def jàmm du ñaanal sunu baay bi génn àdduna démb muy maam góor gi Njaay laaj maam góor gi Ndiaye yàlla ko yàlla xaare àjjana yàlla na ko yàlla xaare àjjana waa dan ñaan ci jàmm uh, ci réew mi uh, tijaan bi layen bi xaadir bi murit bi uh, jàngu bi ñaseen bi cene ba cene bi ñëpp benn lan ñëpp benn lan ñoo bokk li nu bëgg nanu ñaan rek yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ñëpp nanu ñaan ndax réew mi yëngu na fan yi nan def ñaan waaye lépp dafa am lu ko waral yaa yàlla def jàmm ci réew mi yàlla na yàlla def jàmm jërë ngeen jëf kontaan nañ trop yéen incha allah li leen waxoon rek ñu ngi ànd ak télévision bu mag bi la 7TV la télé qui nous ressemble et a ressemble télé bi ñu nuru ba noppi diñu dëggale ñu ngi fii nag ci kër honorable député maam Gueye macha allah ku ko tudd nag fekk ko ci biir kër Seydina Limamou ñuy maamam mu bokk fi di taalibe ba pare mën fee def lu baax di nit social fonk Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam gëm ni bàyyi laay mooy rasululaay kon ñu ngi leen di jox honorable député Mame Gueye macha allah bu ñu paree nag doo ko ñëw tuuti ak moom noo dunde tey sa appelu maam tey mooy ka mooy 144. 144 auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin alhamdulillaahi rabbil aalamiin alhamdulillaahi rabbil ma wax ko rek ni ko sama baay bu tedd ba Chérif Al Ousseynou daan waxee ndax nag euh, fekkee daaw fekke waat ren doy na sant suñu boroom ndax am na ñu ko fekkee woon daaw te ñu ko ren baa bu ñu ko fekkee it taluñu ko ñu ngi ci yeneen tolof tolof kon boo ko fekkee tal ko mun ci aussi da ngay sant suñu borom bu baax kon ñu ngi sant yàlla bu baax di am mbégte rek ndax ñun appel mbégte la ci ñun mbégte la parce que ci mooy bis bi Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam woote woon ni woon lépp dina ma ci fekk si mag ñi naan kan seexal ñu baa nga mu xar xaddamal ñu ndax ñii ñoo ngi seexal ñii ñu ngi ma xaddamal mu ni seexal naa suuf si mu xaddamal naa suuf si bu soobee ma boroom ku gëm siwul tamit di nga ñëw ngir wut si waaye ñëpp dinañ ñëw kon yaakaar naa ni tey jii ndakaaru fi la lépp xewe fi la lépp daje pale baa ngi fi maanaam lépp loo xalaat rek assemblée national mu ngi fi mais lépp loo xam ni rek fa la ñuy jëlee décision ci réew mi ci ndakaaru gii la ne te yaakaar naa ni mètre carré aussi bu suuf fii la gën a seere mën ngaa dem fenn mu fay jar 20 000 francs waaye fii moom 1 million jëm kaw wala 200 000 jëm kaw lay dégg kon yaakaar naa ni la mu waxoon ca woote ba lépp am na ñu koy sante suñu boroom encore une fois ndax moom ab jaam la rek suñu boroom yabal ko mu ñëw joxe am na ñu yàlla may chance ñu nangu am na ñu yàlla may chance ñu wuy si waaye am na ñoo xam it xéewal yi fi nekk moom lañ jël si lépp rek ba tey ay xéewal la ñu koy sante suñu borom di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekkee ki at yu bëree bëri di ziyaar nag xalifa bu tedd bi Seydina Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Mandione di ñaan yàlla mu yàgg fi loor te ànd ak wér ak rakkam yëpp ak njaboot gi nga xam ne ñëpp rek njabootu Seydina Limaamu alayhi salaam nañ mais aussi ak taalibe yëpp ak saabu Seydina Limaamu yëpp en am nañ mbégte di kontaanaat bu baax tamit dajeek waa 7 ndax ñun lépp loo xam ne jigéen daf ko jiite rek lay nekk mbégte si ñun kon ñu ngi ñu ngi santaat di nuyu seen borom télé mais Maymuna di suñu sœur mais aussi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan la la 7TV waa ñun dañuy jéem dañuy jéem rek di la remercier yow tamit ngoy bu baax ak sa caméraman bi nga àndal parce que da nga nekk nit koo xam ni nit ku baax nga nit ku mën wax lu baax man nit lenn rek laa koy nawee mooy gémmiñam foo ko fekk lu baax la ci jénne parce que dama naan nit dangay nekk noble ci sa wax ci sa doxin ci sa solin ci sa comportement ci lépp nobles day feeñ fépp du ci deret bi kese mais nag bu nekkee ci deret bi mooy mooy wasaaroo ci yaram bi yëpp ci kaddu gi ci kii bi te yow loolu macha allah mu ngi ci yow mu nekk lu ma naw ci yow daal di wax ni rek ñoo ngi taalal gan yi ndax ganu yàlla yi ni ko Chérif Alou Seynou daan waxee sama baay bu tedd ba dee ma ko jëlal su may tudd turam ndax kii dafa nekk koo xam ni ba may am juróomi at laataab bi ci ay loxaam mu nekk nit ku baax ginnaaw ba samay waajur yaree ma ba pare mu am lu bari loo xam ni daf ko def ci man muy savoir vivre ak savoir faire ma koy ñaanal moom it waaw <laughs> yàlla yokk ay leeram ak magam yaak ay rakkam ak ñëpp ñi mu fa nekk ndool rek di ñaanal suñuy waajur bu góor comme bu jigéen mais ñëpp ñi nga xam ni seeni mbokk lañ aussi yàlla yërëm leen xaare leen àjjana yokk seen njéggal ndax nag lépp lu ñu sabablu woon ci njaboot gi rek suñu borom teg na ci loxo ba ñu ngi ci yoon boobu ñuy ñaan yàlla suñu borom gën ko yaatal et que bis bi aussi lépp loo xam ne def nañ ko si rek su déwénee yàlla ñu yàlla may lu ko triple ba mu dizaine dix dix fois loo xam ne liñ ci def ren la ndax du ñu tàyyi di def ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ndax yokkute rek lañ ciy gis defal ko dafa neex kenn neewul mooy yonent alayhi salaatu wasalaam moom moo ñëw taxaw ni maa weexoon démb maa ñuulaat tey suñuy maam gàddaay ñëw wuy si ñun ñu judd ci suñuy mag judd ci suñuy pàpp judd si kon loolu doy na sant yàlla te ba léegi mbir maa ngi gën a yokk yaakaar naa ni amul tànki gennaaw la mu waxoon rek fi ma tàmbale woon laay waxaat ba mag ña taxawee sama ñoom maam ni ko ah limaamu ñii kat ñu ngi mu xaddamal ñii ñu ngi seexal eh, dañoo bëggoon nga defal ñu loolu mu ni man mu xaddamal naa suuf si seexal naa suuf si bu soobee ma boroom lépp dina ma fekk si te ku ñëwul ngir gëm si di ñëw ngir wut si foog naa ni ndakaaru tey loolu seede la ci jarul wax képp ku am kër feneen it ndakaaru nga am fi kër moom moo la gënal kon ñu ciy santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla ñu fekkee ko at yu bëri yàlla yokkal leen seen télé bi tamit. monsieur le maire Doudou Pathé moom lañ fekk si tey fii ci Cambérène këram ci appelu naa Limamou bi ñu ne tey mooy 144. initiative bu appelu Seydina Limamou bi kon buñ ko fekkee fii tubaarkàlla muy meeru Cambérène def fi lu baax nag wax fi lu baax nag macha allah ba pare nag bokk ci réew mi appel bi di appelu maamam faaw ñu fekk si ko weccoonteeg moom ay kàddu monsieur le maire ñu ngi lay nuyu duñ paate ah, jërëjëf Ngoye salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu vraiment di am mbégte lool si sa teewaay comme ni nga ko defe woon daaw ci fi nga xam ni fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa màggee muy Cambérène am na naa dinaa ñëwaat euh, ci biir interview bi relation bi nga xam ni Cambérène am na ko ak appel bi vraiment di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ndokkeel xalif général bi ak mboolem xulafaawu Sénégal mboolem umma islamique ci appel bi nga xam ni dañ koy commémorer mu nekk bis ba nga xam ni euh, bis bu am solo la ndax day fàttali góor gi nga xamoon moo taxawoon fii ci sow bi ni boo daayallahi yaa marshal macha allah bisimilah bisimilah. dégg ngeen monsieur le maire li mu wax man nag fi may njëkk a dugg ak moom macha allah mooy monsieur le maire duñ paate maire la mais dafa dugg si Cambérène avant may dugg ak yow sa appel bi dama koy bref rek monsieur maire lu tax lu tax social lu tax nga social. lu tax nga dugg ne Cambérène bu bees bu ees. macha allah <laughs> ngoy waaw question bu ñu may faral di poser la Cambérène bu yees. des fois sax na may corriger ni du Cambérène bu bees. Mm-hmm. ndax euh, dëkk bi. Mm-hmm. li mu làmbool ci mbaax. Mm-hmm. ak tawféex ci cosaan. loolu moom euh, kenn mënu ko toxal indi leneen. mais bu ñu yaboo ni dañuy yeesal li nga xam ni moom mooy cosaanu dëkk bi mhm. mooy li fi Seydina Issa sampoon ci lu baax ak ci développement ndax Cambérène dafa bokkoon ci dëkk yi nga xam ni mhm. dañ leen doon ràññee mhm. bi fi Roholaye Issa nekkee ñun nag ñu inspiré wu ci visionnaire boobu na Issa Roholaye pour yeesal euh, Cambérène ci anam yëpp voilà di santaat yàlla nag ndax ñu ngi ci am ay jéego yu am solo gëm naa ni euh, balaa mandat bi di jeex fii ak cinq dinañ teg seen bët ni ñu ngi ci Cambérène bi es di santaat yàlla ndax alhamdulilah ala kulli xaal ñun dañoo bokk ci ñi gëm ni Sénégal euh, réew bu màgg la senegal réew bu tedd la Sénégal bi yàlla di cëral dëkk yi yàlla dafa baral loxo Sénégal ah, ñun de dañoo bokk ci ñi ko gëm ndax li fi am ci ay góor yàlla hmm. li fi yàlla def ci sutura ak ci teraanga ba ci kes ba ci ressources yi hmm. meññante fii hmm. ñu am suuf am ay géej am ay mag ñu baax ñu suuxat pas-pasu nit ñi ci islaam ba ci jàngu bi ah dégg maam loolu bokk aussi ci li nga xam ni bu nee stabilité réew mi mag ñi liggéey nañ ko démb ndax li ëpp ci mag ñi ñu fiy nekk ñu ngi fi nekk ak tubaab bi amaana amul nu woon lépp lu leen gënal mais ñu ngi doon dund seen pas-pas di ci nampatal nit ñi ba tax tubaab bi coloniser nañu mais taxul suñu pas-pas yàqu Sénégal doonoon dëkku jàmm war a continuer doon dëkku jàmm état ñëw parce que dama naan état mooy deuxième mbir mi nga xam ni instrument bi nga xam ni participer nañ ci stabilisation réew mi euh, Senghor am ci taxawaay Abdou Diouf noonu Abdoulaye Wade noonu ba ci Macky ci ay réalisation yi nga xam ni yu am solo la donc li am solo rek mooy lu mënti am ñu bàyyi xel ni richesse bi ëpp solo ci Sénégal du gaz ak pétrole wax naa ko ci ay jataay mais mooy jàmmum réew mi mooy kennoo ci biir réew mi mooy unité bi nga xam ni mag ñi tëggoon nañ ko ndonte dañuy wax tarixa bi ak tarixa bee mais ñoom ñëpp àndoon nañu ci pas-pas bi nga xam ni mooy pas-pasu islaam tëgg réew mi ci jàmm donc dañuy ñaan yàlla ak lu mënti xew euh, ñëpp lekk ànd ci jàmmum réew mi ci kennoo comme ni thème mu appel bi l'unité bi nga xam ni moom la Seydina Limaamu aussi jàngale ci sol ko yu weex yi laabal xol yi su ko defee lépp lu ñu yéene suñu bopp rek ñu yéene ko jaam yàlla yi yaakaar naa ni bu ñëpp bàyyee xel loolu rek lu coow li bari bari Sénégal dina mucc Sénégal dina sax di doon nekk bàyyi lay alaay borom daaru seydi ru laay baay laay borom jàmm laay alaay yonen feeñ naay xatta bi xatwatin na ngeen ko seen macha allah ci ay seen macha allah di doom maam bu seeni laay ñu fekk fi nag caat muy mooy xaritam di léppam li ma dal rek ko dal baat bi xaw a dem macha allah moo tax mu bàyyi ñoo caat laay mi macha allah mu sànni ay kàddoom ci appel Seydina Limaamu bi te ñu ñëw fekk la fii ban yëg-yëg ngeen ci am mooy 44e année macha allah 144. année quatrième année ren ji macha allah appelé Seydina Limamou bi maa ngi lay nuyu caat laay waaw maa ngi lay fay soxna si di la jox sa wàccuwaay tey nuru waa téléspectateur 7TV yëpp di leen sargal tey wax ne dañuy dellu sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamina ci appelu Seydina Limamou bi alayhi salaatu wassalaam fi ngeen ñëw nag fu ngeen war a ñëw la ndax euh, kër soxna Aïty Sène Laye Thiaw ibnu maam ibnu Seyni ibnu Rowalaay Isaa ibnu Seydina Limaam alayhi salaatu wassalaam kon fi ngeen war a ñëw fi ngeen ñëw ni dangeen fee war a ñëw yëg-yëg bi ñu am ci appel bi nag moom dafa doy waar ba wax dëgg yàlla doo doo sax mën a comprendre ndaxte ñun Seydina Limaamu dafa oote ne aajiboo daaye laay insiwal jënni ini rasulillah ilaykum suñuy maam toll ñii bawole ñii fu nekk ñu toll fa ne amana ñii biñ koy uysi soluñu dàll ñii biñ koy uysi di daw ñii di xëlu ba ni ñu ñëwee tey ji uysi wooteem bii nga xam ne amul tànki ginnaaw tànki kanam rekk la am ku ñëw daaw boo ñëwee ren di nga xam ne yokkute moo am dafa am lu olof wax olof neen lu dul dëgg du yàgg ñun dey même bu doon ay nax bëgg nañ ndaxte du suñu pertement xam nga li tax du suñu pertement dañ ko gëmoon démb ci der bu weex bi kon tey bu ñëwee ne moom la waat ci der bu ñuul bi ñu gëm ko ñun amuñu ci lu ñuy sikki sàkka ndaxte lu dul dëgg du yàgg te ku gis nen ne nen a ngi ku ku gis appel bi xam ne Seydina Limaamu li mu woote bu amul woon ba tey fay na ba tey fay na moo tax nag ma ne ñun kon alhamdulilahi rabil alamina ki ngeen ñëw ci këram nag di euh, bintumaa ibi seeni bu may wax ci moom sax damay gàtt muy soxna su yéeme soxna soo xam ne fi maam kumbandooy tegoon tànkam ci bernde ci bëgg nit ci xam àdduna fa la teg tànkam muy soxna Aïta Sène mii ah man de xam na ne kóllëre la sama maam àndee woon ak maamam bañ na ko ba bu may présenté sama cousine lay wax cofuma benn yoon Alassane may ñaan lépp lum fi ñàkk yàlla na ko suñ borom fulal ci barke borom oote bi wax dëgg yàlla rien naa dire lekk yi bëri na bernde yi bëri na naan yi bëri jàmm ji bëri na jàmm ji bëri na ñoo gëm ki yàlla yebal jamaana alhamdulillahi rabbil alamin alay sagam ñoo ni baay mooy rasuulu alhamdulillahi yonen nga yonen yónneen nga lay la li ma la wax ne àll la ñuy demee rek alasaan macha allah ndeysaan lay weer wee lay laay ñu ngi ànd ak télévision bu mat bi mag bi laa 7TV télé bi ñuy nduru ba noppi di ñu day dajale la télé qui nous rassemble et nous tey moo ñu dajale fii macha allah ci kër Soxna Aïta Laye di leeru maam Ibou Seni ñu fekk fi nag koo xamante ni macha allah ku xewle mboolem koo xam ni sénégalais nga di wax baatu laa ilaha illallah muhammad la boo xewlee met El Hadj dana fa taxaw danga ko fa fekk met ñu ngi lay nuyu ci télévision bu mag bi la 7TV sa télé jigéen. waaw télé sama jigéen euh, may mën a Ndour Faye di jigéen bu mën góor ndax ci paysage médiatique bi. raar na jigéen taxaw samp télévision a ah, télévision boo xam ne gënu fee yaafus ni seen ko mu taxaw di xëccoo première place ti te je peux dire que c'est la télévision des grands événements ci moom moo tàmmal sénégalais yi lépp lu xew daf koy def direct ba bu may def conférence de presse café de Rome moo fay njëkk def ko direct sénégalais yëpp xam li may wax ak ñoom donc ku may dimbale la ci sama communication ndax li may wax Sénégal yi mu ci jëriñu kon naa ngi koy nuyu di ko gërëm di leen gërëm yéen ñii di ay ndaawam nekk eh, ak moom di def liggéey bu rafet yéen techniciens yi journalistes yi animateurs yi animatrices yi reporters yi vraiment gàcce ngaalaama fii rek tey bisu maam laay la bisu Sénégal la ndax eh, dafa nekk bis boo xam ni ñun dañ ko war a tiitaroo lépp loo xam ne ndamu lislaam la di ndamu Sénégal ah dañ ko tiitaroo te maam lay ndamu lislaam la ndamu Sénégal donc c'est dafa nekk benn marque de fabrique sénégalaise dafa nekk benn authenticité sénégalaise dafa nekk patrimoine sénégalais ba mu nekk bu nekkee ginnaaw mu nekk patrimoine de la umma islamique ñun dañuy tiitaroo am koo xam ni umma bi moo ko moom koo xam ni dafa wër àddina waaw njëriñ àddina nekk nekk drapeau ci l'islam kon eh, bisam ñàkk ci ñëw du yoon te wóorul ñëw ci rek dafa nekk loo xam ne dafay gëneel ba ma tàmm di ñëw chaque fois ñuy def ñaanu eh, maam laay eh, seen alimaamu ah dëgg dëgg nag bu dee baa ci jàmm ci tal ko damay ñëw moo tax ma ñëw nii sargal bis jox cër bis wane fi ma ko teg fonk bis dafa am bis yoo xam ne Sénégal Sénégal yi dañ ko war a gën a fonk c' est extrêmement allah dafa am bis yoo xam ne dañ ko war a fonk bis Seydina Limaamu bi ci la bokk ndax ki ne ana Muhammad Rasulullah wax ko mu mat tey cent quarante quatre ans sul amul sikki saaka gëm leen baay laay te wuy si loolooy dëgg Maître El Hadj ñu wax tey ni dëkk bi tàngee rek dañuy bref parce que macha allah. dañu war a dem yéen it lan ngay jox askan wi. xanaa ki wote jàmm yox jàmm jàmm rek. lépp lépp xaj waaye boo jëlee réew fekk fekk lépp toj loo fay def kii wut ak ki fi nekk yëpp nañu wut jàmm ñun ñi bëgg réew mi di politique nañ gën a jiital jàmm bañ a bañ a jiital sunu bëgg-bëgg sunu bëgg-bëgg rek sunu égoïsme Sénégal nañu gën sunu bopp Sénégal nañu gën a suñu bopp et c'est important waaw man nag Sénégal moo gën suma bopp moo tax may xeex su baa ngoon te aw ma ci dara waaye maa ngi xeexal sama réew ah teg ko ci siraatal mustaqima am na ñu ma mere am na ñu may xeex am na ñu may saaga am na sax ñu taal sama kër ndax ñoom noonu lañ gisee àddina bi lu dul yow rek dafa bon ku ànd ak rek dañ taal loolu nag du jàmm taal ak jàmm àndul yàq ak jàmm àndul. ci jàmm la dox dox surtout bu ñëwee Cambérène Yoff jàmmalaay borom jàmmalaay jàmm rek la woote ak ah, sa waay dañ jël jàmm fii ci kër Ibou Seni Laay tubaarkàlla macha allah ibnu sëriñ Ablaay di sama frère di sama lépp sëñ bi man damay gàttal rek. ginnaaw ba nga sant yàlla julli ci lan ngay ñaanal sëriñ ndax sonn nga te it après sëriñ ñëpp xam na ma baye boo nu nangu woote bi dafa leer 144 ans ana Muhammad Rasulullah waay waay jàpp naa table nañ wuy si woote bi. waaw si woote bi. yàlla yàlla def jàmm ci réew mi ngay ñoo waxtaan a yow dama ciy sawar parce que euh, li ngay yëg laay ñoo bokk lépp ñoo bokk deret ñoo bokk kumba ngay bokk suñu lépp kon Sénégal jàmm ji fi mag ñi ñaan ba dem jàmm ji mi ngi fi te du dañ du mës a dañ ba àddina tukki li fi Seexul ba dem mi ngi fi li fi Seydina Imaam Laay borom bis bii woote woon ñaan mi ngi fi li fi Sey Seydil Hadji Maalik ñaanoon mi ngi fi li ci des rek tool bi leer na rafet na neex na ñu ñoo war a muus rek wette ci meññante yi xéwlu ci dem ndax ñu am jàmm parce que jàmm nag ku ne yaa koy utal sa bopp li may wax xale yi guddeeg bëccëg ah ku mel ni Ibou Sène Ndeye tollu ma xuloo tollu ma xeex nekkoon ci ay mbir ñu jéem a dox ci lu yàlla mooy dogal ay mbiram ñu dal fadla bi yadillaahi yàlla nee na ngeen sama loxo yi la ne yuute yi ma ne sax neex yàlla nee na kenn du ma dab du ma rendre compte kenn li ma neex laay def kon li mu defal mag yi nañu ko nangu li mu defal keneen nañu ko nangu te nag nguur nañu xam ne Allahumma maalikal mulki tuuti mulki man tasaa yàlla neen nguur maa koy jox ku ma neex no gars yi dara rek xam ni kam koy jox yàlla pare na ci mooy soppante bi yéen te jàmm te waxante lu baax te jàppalante ñi amar a dimbali ñi ñu war a dimbali ñu dimbali leen te yàlla tax suñ ko defee addina dina baax yàlla yàlla yokk xéwal ci réew mi yàlla defal nu jàmm defal la koy yëkk dina ca kaw ngëwër yàgg fi lool barkeb Seydina Imaam wallahi maa kontaan na looy ñaanal may mën a Ndour Faye la télévision 7TV bi ñëw jàkkaarloog yow di jigéen première télé boo xam ne jigéen ak moom la ko ñaan. yàlla na ko yàlla lii sut njortaam. Mm, nekk moom na xam ne sama xarit la sama soppe la te nekk naa ko defal plateau spécial sama xarit la su ma nee ñëw sax suba seddal ba ngeen ñëw fa ñëw fa dina am solo incha lii lañ leen indiloon macha allah ci Cambérène ci appelu Baye Laay bi la télévision 7TV télé bi ñuy nuru ba noppi di ñu dajale la télé qui nous rassemble et nous rassemble tubaarkàlla macha allah tey premier jour appel muy 144 yem année tombé ci 2024 macha allah tabaarakallaa lii lañ leen indiloon nag di wax nañ nañ kenn teg foofu seen baaraam ba suba ci yoof macha allah ñu ànd ci appel baat ngeen yàgg fi ñu yàgg fi yàlla defal ñu jàmm caméraman bi nag macha allah papi la macha allah tabaarakalaa ñu nuyu Pape Mendy di ko ziyaara bu baax di ko ñaanal yàlla jàmm kon jërë ngeen jëf ba suba jàmm ak salaam ñu dem yoof macha allah. muhammadin sayyidul arabi wal ajab سيد الورى